lan bikum ñetti million parrainage moom la Benno Bokk Yaakaar jox aamadu Ba Allah Le Soleil yéene kaay ñu ko xamal trois millions sept cent quatre-vingt-deux mille zéro cinquante-deux moom lañ parrainé Amadou Ba ñoom waa Benno yi ci Sénégal yépp Direct News yéene kaay ne Mountaga Sy moom moo jël raw gàddu ga cent quatre-vingt-treize mille moom la jébbal Amadou Ba alerte yéene kaay na ko bul fàttee Aïssata Bili Dia trois cent soixante-quinze mille parrain moom la jox moom it Amadou Ba point actu yéen kaay ne neexut dégg waaye am na lim boo xam ne gars yi ñu ngi wax ne fañ ko def ci parrainage bi xel sax fa koo nanguwut lii dëgg mooy gars yi fa ñuy yokk seen limu parrain yi yaw seetal fa ngay gis ñoo xam ne ci élection maire yi weesu fañ leen a mbuqi bañ tëdd tey ñu xëy génne parrainage boo xam ne moo ëpp sax ña war a wote wala nga gis koo xam ne wote député yi responsable yoo xam ne fañ leen a mbuqi dóor leen seen diiwaan tey ñu xëy génne lim bu bëri naan fañ ko parrainé ñuñ ñu naxaate indépendant yéen kaay ne farandooru Ousmane Sonko yi ñoom Pastef ba samedi ak dimanche bii fa ñoo xamal mobilisation parrainage bu baree bari ci réewum Sénégal foo tourné gis nit ñaa ngi rang ngir parrainel Bassirou Diomaye Faye ba tax yéene kaay bi ne farandaru sonko yi bi ñu duggee ci parrainage ba léegi ci la dëkk bi yëngatu ki yëngal opposition bi nag rawatina seen kuréel googu ñuy wax fit du kenn ku may Macron njiit réew bu France waa fit yi fa ñoo bind leetar Macron na ko fa ñoo bëgg nga génnee sa loxo ci politique bi am ci biir Mbodj ne njiitaram Macky Sall fa acharné wu ci kaw Ousmane Sonko waaye li ni du ko teree dem de réew mi moom pare na ci moom Macky fa caa yokk moom Aïda Mbodj na Bassirou Diomaye Faye am na qualité mën naa yor réewum Sénégal waaye Amadou Ba moom nee na mënta andi benn coppite ci réew mi ndawu Sénégal yi nag nee na fa ñàkk yaakaar seen réew moo tax ñuy dem Barça mbaa Barsàq ba tey yoroor yéen kaay fa xëy di àdduwaat ci xeex bu métti bi amoon ci responsable a <laughs> dani fa ñaawlu ba ca kanam yàlla benn dërëm cinq francs yi nga xam ne moom lañ yokk ci njëgu gerte gi bugaan fa wax ne lii fa ñaaw ñàkk respecté sax baykat yi la deux cent quatre-vingts kilo gerte jaaduwut fa tuuti ba ëpp ma ngi ko waxee ca Walf Fadjri yéen kaay ak Sud Quotidien Tribune yéen e kaay ne bi muy amal open press tour ci la wax li ni mel ca Tamba ak Kaolack ndangaan ba ca Kédougou yéen kaay bi ne bugaan kay fa effacé takk ndeeru njiitiram Macky ca Saloum ak Sénégal naka noonu wen quatre heures waa grand place critique le mandat ñoom ñëpp fa ñoo xëy addu ci li ni mel leer laa neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Abdoulaye Seydou Sow ministre fa wax fukki dëggam ak ñaar ci réew mi yéen bokk na ca nee na budget koppar yi ñu jagleel ministère bi yor wàllu urbanisme nee fa tuuti ba jégg dayo beneen ministre bu séq waxtaan ak l'observateur mooy Cheikh Oumar Anne moom la ñu dénk njàng meeg njàngale mi fafaa daal di xamle bëgg a ànd ci système bi gerawu jàngalekat yi wax na ci meru njiitiram Macky Sall wàllu parrainage bi Amadou bi di ñëw mënta tere élèves ndax loolu am Sénégal Sénégal kon fa ñuy jàng de léeg ko yéen a kaay na jëwriñ ji ñuy dénk tamit wàllu yoon fañ ko doon nattal kopparam yi moom ci assemblée nationale mooy Aïssata Tall Sall waaye fafaa porox ndolloo nag a kaay nee na Aïssata Tall Sall daal dafaa nekkaloon awakaaw attekat yi nee na attekat yi nit ñi fañ leen di yàq lu nekk léeg-léeg ñu leen di tàccu te ñoom kenn mës ta dégg ñu wax ci askan wi Abdou Mbow député na Sénégal daal gis nga bandi yi ak seen chef bi bi ñu leen jàppee tëj kaso ba léegi réew mi fa nekk ci ak dal si du quotidien ñaawlu doxalinu àttekat yi fa bëgg ñu dakkal ko enquête yéen a kaay moom fa xëy di ñu xamal ne candidat yi nga xam ne benn bokk yaakaar lañ bàyyeekoo wan ginnaaw Amadou Ba moo xam Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne ak Mame Boye Diao neexut ba neexut waaye ñoom fa ñoo sonn fi mu toll nii de même ut parrainage sax fa jafe ci ñoom yaaw seetal am na ci ñoo xam ne fa ñoo sàcc seen kele parrainage ya ña des ña ngay nangu seen responsable ya ay gal daal la leen gaay yi di dugalal ngir gàllankoor a kaay na ko xée waaye Mame Boye Diao bi mu delluwaatee Kolda mbooloo mu bari bay tuuru programme am ak ni bëgg a yore réew mi buñ ko falee ngir nga bokk ci wote yi nag faw nga jàll parrainage bi Walfadjri yéen a kaay fa xëy duñu xamal ne parrainage bii logiciel bi nga xam ne moom la ñuy contrôler xool parrainage bi ku baax la ak ki baax la ak ñu di jàllu fa bëri lu ci tey xel ci logiciel boobu noonu <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ma jàmbal jaañ fa bind ab livre ci Amadou Ba bés bi yéen a kaay na ca biir livre ba nag ma jambal wax na ca lu bari diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jubóole gi mu jubóole woon Amadou Ba ak njiitiram Macky Sall Macky fa ko mere woon naka noona tamit Amadou Ba bi njiitiram Macky Sall wax na fay dàq Ousmane Sonko ca impôt domaine rajee ko Amadou Ba fa ko waxoon na ko déedéet toxal ko rek waaye bu ko dàq Macky na ko faa koy dàq fa caa yokk ca livre ba ne Amadou Ba tamit tool na jamono joo xam ne mbiru Ousmane Sonko yi biñ koy oolu yoon ak bi koy gaay jàpp ak yooyu yëpp fañ ko ko nëbb xamut ci dara ndax fa xam ñu njortu ne fa jege ak Ousmane Sonko le quotidien yéene kaay moom fa ñoo tànnal xët a baax ci livre ma jambal jaañ boobu li baax dëgg nag te guléet mu am Sénégal dindi sa bos remplacer ko boobu ba di doxee fa dox baax normal opération bi ni mel guléet mu am Sénégal te ca hôpital militaire bu am lañ ko amalee laas yéen a kaay ak Vox Populi ñoo ñu ko xamal ne loolu lu baax la ci réew mi leneen lu baax ci réewum Sénégal mooy moodu moodu yi nga xam ne fa ñu daan doole bitim réew xat bu yàlla sàkk fa ñuy dugal ay milliards yu baree bari ci réew mi yaaw fa ngay xool junne ak juróom benn téeméer ak fukk ci ay milliards mille six cent dix milliards ndaw lu bari moom la moodu moodu di yónnee xaalis bu dugg ci réew mi 2002 bi rek daaw mille cinq cent sept milliards moom lañ dugal ci réew mi gàcce ngalaama moodu moodu yi su ngeen fi amutoon du baax de wala dana bëri kër yoo xam ne cin du fa tàkk laneen lu nar a tàkk ndax ñax mu bari mooy suuf sañ joxoon Akon ngir ñu tabax fa ab dëkk bu naat bu àdduna bi yëpp ñëw di seetaan si Akon City libération fa ñoo xamal ne keroog bi ñu tegee xeer wa yegsi nañ fi dëkk ba tabax bi waroon a pare fi mu toll nii soo fa demee xam nga la fay fekkam gott xàll boo xam ne mën nga faa sàmmee nag dara amu fa ba tax yéene bi na Akon City kay fa a nekk léeboon lu pën rek laneen lu nar a nekk léeboon lu pën mooy courant bu cher bi rawatina ci woyofal bi Antoine Diome jëwrin fa xamle ci assemblée ne daneen delloo si woyofal bu njëkk ba njëgg ga fañ koy wàññi vox populi moo ñu ko xamal sunu làmb yéen a kaay fa ñoo xamal ne Alioune Seye 2 fa mbuqi kurpañ Moodu Anta moo Moodu Anta kaawa ndetterlu jugaat tartar yi mu mbuqiwaat ko mu këpp ca suuf tuut mu ray ko de l'observateur moom fa ñoo xamal ne sandarma bañ doon wax dijee baaji yéen a ngi ko nga xam ne fa réer kenn gisut ko ba léegi léegi salaire am bi nga xam ne njabootam gi moom lañ doon jot fi mu toll ni gars yi fañ koo coupé dagg ko ba tax dijee baaji gendarme boobu ay doomam fi mu toll nii mënatuñoo dem école ndax amuñ luñ fayee seen salaire u baay ba fañ koo dagg léegi gisuñ baay gisuñ salaire seen ëllëg kon fa rek